moo tax ñu disqualifier les faits retenir ce qu'on appelle la corruption mais kenn ku ne xam na ni corruption boo demee les dispositions de 320 du code pénal sont très claires très claires sur la question mais ku am xel xam ni maanaam li ñuy wax dara tegu ci ci wàllu xam-xam maanaam amul benn sukkandikuwaay boo xam man nga cee sukkandiku ci maanaam décision bi pour wax ni loolu am na. moo tax à tout moment maître mën nañ ko teg loxo moom seen. déedéet c' est pas possible parce que teg loxo gi maanaam tribunal moo ko mënoon décider mais tribunal wax na ni loolu aajowu ko kon loolu li muy firndee laal rek mooy ñëw seen objectif du du atteindre du du arrêté maanaam Ousmane na ndax xam na ni arrêté ko moom mooy tuur maanaam musiba ci réew mi. waaye problème bi mooy nan fexe ba du bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm te situation bi nu nekk loolu rek la wane parce que moom dañ ko jugé par contumace alors que mës ta jot maanaam benn notification bu mën a tax mu jëw fii ci tribunal pour layoo ak li xam ni moom lañ ko tuumaal loolu nag vraiment nous le dénonçons comme ni ma ko waxee avec notre dernière énergie et c'est regrettable pour la justice sénégalaise. mais maître est-ce que ba léegi mu jàpp ni que mën na bokk ci élection yi. mais nu muy bokkee non non ban voie de recours que nous non attendez euh, xoolal damay wax sénégalais mu leer Ousmane Sonko ci élection yii nu jëm décision bi day wane ni moom mënu cee cee bokk. loolu na leer dugg ci bopp sénégalais bu ne mën mënta bokk ci élection yi leneen lu waaye man di wax waxula dëgg leneen lu waaye man di wax man bu ko layal ni mën naa toog waxul dëgg dama ni ci réew mi xam ne moom la ñu àttee ko fii ci Sénégal décision bi xam ne teg nañ ko ci kawam moom day wane ni moom mënatul la bokk ci élection yi ñu jëm na leer te loolu moo doon objectif état bi mais est-ce que waa Sénégal war na noo mën a nungu ñaari at yi kaso ñu ni ñu kii dafa violé maam Adji Sarr ñu rey ci jur ñaar fukk ak ñeent ci suñuy doom xañ nu mu mën a dem ci nu nu neexe ak ci nu nu neexe kenn amatul sañ-sañ addu kenn amasutul dox ci réew mi loolu war waruñu ko bàyyi mu neen te bu yaa Ousmane maanaam kii ñuy wax aji Sarr bu njortee ni maanaam lii xam ni moo xew di ci génn ndax na boppam ndax lépp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii yoon may nañu ko ginnaaw décision bi dina nu ko def incha allah. je vous remercie.